Omar Faye attention Omar Faye tiré premier poteau dévié encore euh, Samba jeexagul marque jeexagul attention dégagé encore oh faute voilà faute euh, de Idrissa Cissé. Bass Gueye dégagé na ko pour chercher ki nga xam ne mooy euh, attaquant attention dévié de l'autre côté Rémi Bokandé waaw attention arbitre waxul dara dem encore Mañan Cissé Mañan toujours Mañan yor attention hey Abdoulaye Diakhaté jox na xam ne mooy Idrissa Cissé Idrissa Cissé Rémi Bokandé ah Bangoura nan lay dem Bangoura Bangoura toujours Bangoura nan lay dem centre da koy xam ne attention Mouhamed Ndiaye attention Ousseynou Touré oh, oh. Sidi Bouya attention tiré deuxième poteau attention le quartier eh Abdoulaye Diakhaté loolu wóorul tête de Mouhamed Camara attention. voilà Mouhamed Camara Mouhamed aca Bangoura na dañ tee bal bi Bangoura Bangoura ba tey bal bi génnul Bangoura attention Mar ba tey jeexagul ah barke moo yor noonu centré waat na ko deuxième poteau dégagé un faute arbitre amul dara waaye arbitre nee amul dara voilà Mohamed Demna, Rémi Rémi deuxième poteau bien tiré Moulondiaï, oh un hors-jeu. Marc Marc toujours Marc attention attention Allez. oh sauvé sauvé de justesse bien défendu ouais. c'est fini Ouais, c'est la fin du match. Raj Malik, il tire et il marque. Moulondiaï qui se lance. Mélon Ndiaye ak i marque ak i marque Pape Sène. contre Mélon Ndiaye bon tireur un très bon défenseur Mélon Ndiaye sans pression qui marque mu ngi noonu contre pied ñaari bal ci benn pour waa Jaraaf. Ama waay Ama Ama eh Kirat eh Kirat waay dugal gagné c'est Rémi Bocandé Jérémy Bocandé face à Libasse Gueye Jérémy qui prend son élan Jérémy Jérémy et qui marque et la Jaraaf qui gagne. C'est fini. C'est fini. La girafe qui gagne. Ah la girafe qui gagne par le tir au but. Félicitations à toute l'équipe du girafe. Félicitations au président. Félicitations